waaye bi ñu fi mujj diggante demee Tidiane Faye euh, ñu ci bëri xàmmewuñu ko ñu ci bëri Euh, nee nañu Alioune Sèye Junior bi ñu gis tey xàmmewuñu ko mais balaa ñuy xuus ci waxtaan bi dama koy bàyyi mu nuyoo ñu wéyal waxtaan bi ndax defe naa am na am na combat sax diggante moom moo kànkang ndax ku jógee ci Tidiane Faye ñu naan Alioune Sèye lan la def nii ba bàyyi nga jóge fa dal ci moo kànkang xale boo xamante ni coow li topp na ko Bawol am ci moom yaakaar ah Colobane am ci moom yaakaar waa Refane gépp am ci moom yaakaar mu dugg ci moom xaw ma nag lan moo ko ci dugal waaye yooyu yëpp dinañ ko laaj waxtaan ak moom ci làmb waxtaan moom ci combat bi mu la waaw gannaaw ba sant yàlla julli ci Yonent sant samay ñaari waajur sant sama sëriñ sëriñ Babacar Sy di wax yàlla yàlla yokk ay leeram santaat sama sëriñ maam Malick Sy Moussa Mansour di ko wax yàlla na fi yàgg te wér ci barke Yonent bi sant waa yëmbal euh, tamit di sant tamit sama waa dëkk waa Kër Matar waa ñàpp bala waa Kër Mbir waaw maa ngi sant ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi jàpp Alioune Sèye Junior mm-hmm. maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm yaa ngi écurie Waalo ba léegi. maa ngi Waalo ba léegi waaw. Hmm. mais mais ñu ci bëri nag yaakaar nañ ne alin Seye dina bu dina parce que mafia bi am fii. Mhm. ñu ngi koy gis ni muy àndal di ne est ce que mhm. du mujjee bàyyi écurie Waalo sax xam nga ñëw toog mhm. yëmbal wala Malika benn yoon. nekk foofu. waaw xam nga man moom du man ciment laa benn yoon laay tooy. Hmm. te écurie Waalo mooy suma écurie lépp lu ma am fa laa ko amee. Hmm. kon man tey sama ngor mayatuma may jógee Ikiri Waalo Ikiri Waalo si kàttanu yàlla fa laa jeexale sama carrière ndax ginnaaw maa ngi gis Alioune Seye 2 sama ginnaaw man amatuma amatuma beneen soxla ci benn Ikiri fii nag am nañ fi mafia ku ju mel ni ay Sénégal général Malika armée xam nga sama gaa yëpp waaw am nañ fi mafia bu mafia bu dëgër mais man géejewaay mooy sama Ikiri. Ikiri Waalo mooy sama Ikiri waaw moom ñoom tamit ñu nangul ma ko lool ñu nangul ma ko loolu. Ah. mais doo ci am problème des fois. non ban problème ndax boo ci am problème day fekk. parce que parce que defe naa mhm. euh, général Malika bëri fi ak ki nga mhm. des fois mu ñëw seen écrit des fois mu dem écrit Balla Gaye contact. Mhm. am woon problème moment non du du ma am problème ndax man du ma hypocrite. ñoom général Malika ba ci armée. mafia bi xam ne ñoom lay àndal di entraîner. ñoom may nañ ma duñ bëri sunu waa écrit duñ bëri écrit waalo waaw keneen nag loolu. ndax maanaam sama diggante man ak ñoom xam nga. Ah, waaw ne déedéet waaye. loolu moom loolu moom day day xajamal nag. sama sama seen ànd yi kay yàqu daa ci ñu ñu sama diggante man ak ñoom. loolu nekkatul ay affaire day war a bëreeg waa Ekiri Waalo nangam na déedéet man maay ñooy man xam nga mais keneen ku dëkk yëmal di bëri waa loolu yow la yow la concerné mais mafia bi nga xam ne ñoom lay àndal di bëre may nan mu duñ bëri suñu waa Ekiri waaw te ñoom ak sama waa kii tamit jàmm leen séq armée nekkoon na ikiri waalo. waaw. Hmm. nekkoon na ikiri waalo. ok waaw. noonu la demee. kon moo tax côté boobu daal sa xel da cee xaw a. sama xel day sama xel da ci musa dal ndax man ànduma kenn di ko jaay. ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi suñu mafia mafia Talla Diop waaw di remercier di tamit di nuyu en passage tamit di nuyu Talla Diop ak Grand Da waaw maa lay nuyu baax a baax. mais ñu ah. gis nga jóge ci combat boo xamante nii sa diggante ak Tidiane Faye mhm. Tidiane Faye gëjoon bëre ñu gëjoon koo gis mhm. mais nga dugg ci moom mais bi ñu ci duggee tamit ñu gis la ak benn masse benn volume boo xamante ni nii ñu ci bari xam ne alin say liggéey la mais keroog bi nga ñëwee mhm. euh, lan moo la ñàkkaloo parce que xaa bi bari na yow sit bi sit bi sit bi sax defe naa ni xaw na la bett waaw xam nga làmb moom chaque jour rek boo jógee rek da ngay da ngay am ay jàngat xam nga def nañ entraîné noonu def nañ lu ñu war xam nga li ñu war a def yëpp def nañ ko xam nga mais ndaanaan moo ma daan Tidiane Faye daan na ma. mais nag non non moo la daan. waaw xam nañ ne ndaanaan la daan. mais damaa xam ne sa diggante ak Tidiane Faye am na noo ci doon génnee sa buntu làmb day ubbeeku. waa loolu. calcul bi tamit bari woon na trop. loolu loolu dëgg la mais tamit làmb moom. du biir day xëy rek wasin xam nga li ngay foog li ngay foog li ngay foog ak liy am li ngay foog ak liy am. Mhm. du doon benn. man defoon naa ne bu arbitre ne prix su ma ko jàppee dama ko daan mais tamit làmb ji nu mu demee ñëpp xam nañ ko. maa dóor maa song mu dóor ma tànk ma def kaat appi mais ñu koy sant yàlla nag. parce que cong bi mais mais du song bi soriwul maanaam dama ko yàkkamti rek dama yàkkamti woon song mi rek loolu kese la dama ko yàkkamti woon a jàpp ndax maanaam man combat yi ma ñàkk yëpp loolu moom ma ñàkkuloo ndax dama yàkkamtee jàpp sama pour man li nekk si man nekkul ci kenn ah mais nag foo mi dama ko mën damaa a bëre ah, lu mu yàkkamti rek moo ma yàqal sama combat boobu noonu mais tamit Tidiane Faye mooma daan démérité wu ma damay wuutiwaat loolu yàqul ci sama yoon dara. ñu gis nga jug Tidiane Faye Tidiane Faye may la chance. pour nga mhm. dem. Mhm. nga daanu Tidiane Faye. Mhm. pourquoi pas nga jël sa moom nga dem jël xale boo xam te dafa nekk ci yoon. xa nekk xale boo xam te làmb du koo yaakaar. nekk xale boo xam te gox bi mu dëkk. wala dëkk ba mu dëkk dañ koo bàyyi xel. nga dugg ci moom muy moo kànkàn. waaw loolu bala ma siy ñëw dafa am lu xew lu xew démb. waaw noonu loolu kay faa ñu ñëw ci signature bi waaw man ci loolu laa bëgg ñu ñëw ba pare après ñu ñu doog ñu doog ñu doog ñu doog ci tabal leneen xam nga. Mhm. ndax maanaam démb ku ne xam na ni li xewoon li xewoon Iba mhm. ku ne xew na ko. ñu fàttali ko mbokk yi démb face to face daf ko amoon. Mhm. diggante euh, Alioune Seye Junior moo kankan euh, Dame Sène tonnerre deux tonnerre tonnerre un boog du moins ak ki nga xamante ni mooy Bécaye bu Grand Médine ak Nokia. Fallou Ndiaye moo tëggu loolu woowoon leen fa démb ci na ñoom euh, Giro Seras ak Tonnerre 2 mm. pour ñu def fa face fees mm-hmm. mais sa diggante yow ak moom yéen a waroon loolu mais ñu gis uh-huh. euh, moo kankang wàcc na mm-hmm. bàkku mm-hmm. nga wàcc mais bi nga wàccee luñ la gëj teg bët uh-huh. kenn xamul foo jaa ñu ne Alioune Seye dafa ñibbi Alioune Seye dafa daw uh-huh. kenn kenn comprendre daal moment boobu maanaam maanaam xam nga micro bi xam nga ñun moom képp ku ñu xam xam ne ñu ngi ci 19 combats mosuñu yàqu bés. Mhm. mosuñu sax bés bu lu mu laaj ak moom lañ koy jox. Mhm. xam nga démb am nañ fa suufas. Euh, stade Iba Mar ci combat tonnerre de Guiro Seras am ñëpp gis nañ ko. Mhm. Mor Kanka bu mu ñëwee ci stade bi laa ko fekk. bu mu ñëwee dama ci kaw. ci kaw nga ma fekk jël ma waaw ci kaw laa dem toog ndax xam naa Iba xam naa ko. boo xoolee ñoom démb bool-bool yi am nañ ci am nañ ci cinq mbër xaw ma six mbër. yu bëre. fu mu tourné. gars yi dañuy dañuy dañuy yuuxu di ma loolu nag ak làmb ñoom ñoo. ñoo ànd mm-hmm. xam nga ma dem toog ban ma ne Alioune Sèye Junior wàccal dama wàcc. Mm-hmm. ba wàccee ñëw si géew bi ñoom laa fekk ci géew bi ñoom ñëpp. ñu mooy rubee di ma saaga xam nga jël sama téléphone. mais mais mais mais yuuxu la ak yooyu loolu yëpp tamit. ci làmb la bokk waa waa ci làmb la bokk mais mm-hmm. maanaam mais maanaam xama làmb dañ ni li loolu du loolu du loolu du loolu du làmb loolu face to face la. Mhm. ñu ne ñëw présenté ñu xam ne. combat mais da doon neexal tamit ndax démb bu ñu xoolee nag. moo kankan yëg na ci kaw yëg na ci kaw tribune ci caat sekk. Mhm. fee ci fa. Mhm. maye fa xaalis wàcc stade bi yuuxu. loolu tamit day neexal laa waaw loolu loolu moom la war xam ndax lan. ñoom ñoo fa nekkoon ñoom ñoom ñoom ñoom i nen la. ñoom ñoo fa nekkoon ñoom ñoom i nen la xam nga wàcc naa. ruube nañ ma saaga nañ ñu ba pare jël sama téléphone xam nga. ban moment lañ jël sa téléphone. man maman bi maman bi may wàccee noonu di dem ci géew bi. man kankan bi ñëw ci man. sa téléphone ci yow la nekkoon wala ci ñi nga soloon si laa dugaloon. ci biir poche lañ ko jëlee. ci ma déglu ma la wax instant di ñu ruubee ndax boo xoolee Fallou Ndiaye la ñu may. Mhm. soo xoolee maa ngi ànd ak sama turandoo do dofu mhm. maa ngi ànd ak Abou Sy. Mhm. maa ngi ànd ak sama benn sama benn copain moo Diop xam nga ak man muy quatre personnes. Mhm. quatre personnes moom lañ àndaloon démb ndax quatre personnes lañ wax la mais ñoom boo xoolee ñaata personnes lañ ci biir géew bi ah, ci biir géew bi. da nga bëgg a wax ah. ñi àndoon ak euh, tonnerre de. ñi àndoon ak euh, moo kankang ak yeneen mbéy yu ci doon bëri démb. Uh-huh. tonnerre de tonnerre sax man tudd ma ko ndax man dama koy masaw ndax li ko dal metti na trop. mais làmb la rek nag xam nga cinq cinq defar nga ko tamit xam nga. ñu ngi koy encouragé di ko wax tamit mu ñëwaat affaire yi moom. du mhm. benn kii xam nga mais moom laa Mor kankang mu ñëw premier suñu premier face to face Pikine lañ ko defee mu ngi àndoon ak Thiaw Essar ak ki jël sama téléphone mooy ki soloon maye Sénégal bi ba ñëw leen accueillir Pikine ak yëmbal xam nga benn la. Ah, ki soloon maye bi moom moo jël sa téléphone moo jël sama téléphone. su ma moom la policier yi jàppoon encore tamit yóbbu. merci beaucoup xam nga tooñ baaxul man kenn du tooñ man taaliba Serigne Babacar Sy laa barke alxuraan du ma tooñ kenn te lu suma yoon nekkul sama yoon nekku xam nga sa téléphone téléphone téléphone bi du dara ndax man bugguma iPhone chaque jour ay Ablaye Thiaw ay Mor Dieng. xam mais li ma bëgg a xam li ma bëgg a xam mooy. dañ a may ay ay man la man eh, man bëgguma man Barthélémy iPhone. Hmm. man Samsung mooy sama téléphone. Hmm. sama téléphone bi ma yor ma maa ko jënd maa ko jënd quatre vingt mille. Samsung hmm. xam nga maa ko jënd sama xaalis quatre vingt mille ma Samsung mooy sama téléphone. xam nga ma miin ko tamit loolu xam nga. xam nga téléphone quatre vingt mille loolu seerul. mais man samay numéro moo ma solo. ma jëm ci boo xam ne xëy na ñoom foofu la mën a jaar pour ruube ma jël sama téléphone xam nga tamit. dafa metti quoi moment bi ngay jël sa mm. téléphone ñi nga àndaloon ànduñu. ñi ma quatre personnes la àndaloon ñoom xoolal ñaata personnes la te xoolal ay eh, mu ñoom ay cent dalee suñu kaw defe ne ñun ñooy tooñ dama ne sama gars yi kaa leen génn ñu ñibbi. xam nga nekkate ba ma naan kaa leen génn ñibbi nekkate soog bi amoon foofu noonu jël na ci sama moom moom jël na sama téléphone maanaam ki ki soloon lu lu euh, maillot Sénégal bi. Mm-hmm. kooku kooku moo dal sama kaw. xam nga kooku moo dal sama kaw mais maanaam. xam nga ni lu sax mais après dama dem ba xam ne carrément kii maanaam fi mu dugal sama moom moo jël sa maanaam moom moo moo moo moo jël sama téléphone bu duggaatoon si biir. Hmm, micro bi. te gars yi bu duggaatoon si biir. Hmm. problème dina am problème day am ndax maanaam xoolal boobaa ta taayoo suñu bakkan te ñoom gënuñu gënuñu ñoo xotteeku. Hmm. barki alxuraan ko ba ñëwee Pikine loolaal bëgg mu ba ñëwee Pikine ñetti nit lañu. ñun ñu Pikine benn la. ñun ba ñëwee ñun nekk nañ quatre personnes ñun quatre personnes la lañu woon te ñi ma àndaloon ñoo ñoo gën a bon fuuf wan mën a mën a mën a mënoon nañ def la lu leen neex. Mhm. mais dañ leen dala scientifique bi jeex. Thiaw Essar mooy waxtaan ma naan ko mbëree da nga war a ñëwaat ndax Thiaw Essar ku ne xam ne champion mhm. ma ne ko da nga war a ñëwaat. xam nga yow sa place ci ñu waxtaan ñu ne Mor Kang Kang ba ma naan ko mbër liggéeyal ndax nangam nangam affaire yooyu noonu xam nga ñu kaf ree waa jël sama téléphone bi tamit ñu kaf ñu dem ñu ñëw ba indi ñu Ibamaar di ñu ruubee ñoom waroon nañoo xalaat jour ba leen dalal Pikine waxtaan ak ñoom ba seen heure jot ba seen heure ñibbi jot ñu ñibbi xam nga war na mais ñu indi ñu bu Iba Mar dañuy yuuxu di ñu sotti ay ndox di ñu saaga ba pare jël jël sama téléphone ah ma loolu loolu moom te nag woo naa sama ménager woo naa Fallou Ndiaye mu xam ne mooy promoteur bi. Mm-hmm. expliqué ko nee na woo na Mor Kankang expliqué na ko Alioune Sèye nee na ko sonal mooy Sénégal moo jël moo jël moo jël téléphone am. Mm-hmm. Mor Kankang ko man ànduma ko sol mooy Sénégal. Mm-hmm. benn benn benn njumte mu ngi noonu. benn njumte mu ngi noonu te moom. démb caméra yi ñëpp gis nañ ki ànd ki sonal mooy Sénégal sol cap bi. Mm-hmm. maa ko gis. xam nga mu jël sama téléphone choc bi ñu def noonu ci bi kii ma sant mais instant boobu ma sentir naa moom muy dugal loxom ci sama poos mais maanaam bàyyi ma si xel man nag ba may demee ba téye sama gars yi. Mm-hmm. ba may demee ba téye sama si la ma ne kon sa waay ba muy dugal loxom sama poos kon mu mu moo rocc sama téléphone. moo jël sama téléphone te man ba ba ba ñibbi. xaw ma sax moom la policier yi jàpp. mais léegi yow li nga bëggoon téléphone bi bëgg nga cee jotaat. Mhm. wala boog da nga bëgg a da ko bëgg a dugal ci biir combat bi. déedéet man téléphone bi téléphone bi laa la wax man moom ma gënal lu moo ma gënal ay millions ndax xam ndax lan. Mhm. samay contacts yi si nekk moom moo ma gënal ay million mhm. xam nga. dinaa dem jëli sama piis nag léegi léegi ndax am naa ne am na ay nit yu may woo. te maanaam du nu mën a jot sama téléphone fu mu nekk Balaja euh, xod nee na nee na nee na noonu la tudd. xam nga moo sonal mooy mooy Sénégal bi nu ma bëgg ñu jox ma sama téléphone làmb nag kenn du ko lijjantee si nii. Mhm. di ruube sa adversaire xam nga ku ma xam-xam 19 combats laa mhm. man musuma musuma yàqal doomu aadama wala maanaam nag man nag si sama ginnaaw man sama bopp man képp ku may bëree boo boo ma ruubee ma dal sa kaw bugguma sax ñi may àndal dal sa dem booy doon tayle seen bakkan am na ñoo xam ma jàppale ndax maanaam Sénégal la man ñeenti nit laa àndal ñoom ñoom ñu ñu dal sama kaw ay nit ay nit ay nit di ma jàppale mhm. ay nit ñëw di ma jàppale mbër mbër taxawal fii kenn du def dara nangam nangam di ma humilier quoi mel ne man dëkkuma dëkkuma Ndakaaru ñoom man maa dëkk Ndakaaru man fii sama papa dafay am kër. ah ñoom de dañoo paas ñoom. waaw mais maanaam mais maanaam ñoom ñoom mu ñoom di démb di ma di ma jëm buntu xatal di ma jëm te naa la wax leen ne yàlla moo def sutura war naa la xuraanu karim siyaate bi su ma ko su ma su fas su ma ko waxoon ñi ma ko war a wax man ku ne xam na man mbapat sax. mais nag mais nag lii lii li li xew démb. dala wa gën a mën a dugal ci làmb ji. ndax moo kànkang démb. bi ma ko dékkee mi ko nee ma alin say mag la. Uh-huh. Alioune say paa la man xale laa. Uh-huh. lépp lu fay neex maa koy def. Uh-huh. maay fecc. maay bëri. su ñëwee dama naan ko damay tàllal sama loxo ne ko tegal fii mu teg fii te xool nu mu gën a neexee mu tëddee man déggul ma man combat bi pour l'instant du ma ci wax ak ma xam si si la laay wax. Hmm. sama téléphone mu ñoom bool bool da leen xamee liggéey mais bool bool kenn xamee ko sàcc xam nga mais li bu ko moo kankan yéeg nga sax moo kankan mën na laa jox téléphone xam nga non maanaam man waxuma ma déglu ma nag wóor na sëriñ bi du param téléphone soxla woote beneen téléphone mais maanaam téléphone bi nga moom samay contact laa soxla samay numéro xam nga dama am ay numéro yoo xam ne daf ma amal importance xam nga te yëpp numéro yëpp mënoo ko kóoru mu nekk sa bopp man contact dëgg lu ma la wax démb dama tëdd ba guddi ma am lu ma metti xamal la ma daam lu ma am lu ma metti hmm. maanaam ñoom ñoom maanaam ñoom ni nga ko defee moo moo salte man man tey mënu ma mënu ma ko recevoir mënu ma concevoir nii tey Tonnerre mu ngi nekk sa mag hmm. nekk ci quatre défaites jëm jëm ci bés ngay ñëw di ruube stade bi di ruube yow da nga mën war a ñëw concentré wu la. Mm. tax boo mun sax taxaw ci cumukaayu Tonnerre 2 nga dem yéeg ci kaw tribune bi toog concentré wu ndax maanaam tey boo jugee ñu ànd ak Tonnerre 2 dañuy daw jug ànd yow. ngay nekk si làmb ji ruube du tojal du tojal sa bopp du tojal sa bopp di tojal sa bopp di tojal sa bopp ba sa ki lay toogal cumukaay police yi dañ mu mujj jàpp. loolu nag loolu nag tojal na seetaat boppam loolu loolu nag dem dafa toj dafa dafa dafa tooñ koo xam ni. wër na Serigne Babacar Sy ku sori ji Serigne Babacar si la barke alxuraanu karim te xolal nan dem bis bi mu ngi ñëw le 24 juillet daf ma tooñ te yàlla du ànd kuy tooñ. Mhm. wër na alxuraanu karim démb dafa doon concentré aussi sur tonnerre. woon na alxuraanu karim. non mais nag yaa ko fa andi woon lu bu mu. concentré wu concentré parce que ñëw na ñëw na ñëw na waaw mais ñëw na xam nga bu bu mu fa indiwoon xam nga ne. Hmm. day concentré wu mais moom boo xoolee ci tous tonnerre deux mu ngi ci. waaw tous na. en tonnerre deux waaw mais mu ñëw di ruubee avant ba ba tonnerre di waaj a bëree. Hmm. si la ni si la ni si la ni def suñu fës fës fa la nekkoon di ruubee. policiers yi di leen xam nga maanaam tey di nga doomu aadama ñu ngi nit da nga da nga war a matir man tey bu doon man la tey bu doon position boobu noonu la taxawee koo xam ne sama gaayan intime la mu nekk ci bés boo xam ne guddi gu bésetagul su ma ñëwee damay dal ànd ak moom ci tant que dénkuma Alioune Seye du ma du ñëw damay ñëw concentré wu ñëw def sama présentation présentation du ma ñor xam lu li ñor mooy maanaam sama doomu nday bi dégg nekk ci guddi gu bésetagul yaa ñëw di wane sa bopp ah ñëw fu ne nga jaaba jaabante fa xam nga fu fu ma jaar nga ñëw nga ma doo jaar fi ànd ak ay nit di ma saaga xam nga di di maanaam xam nga démb geste bu salte la def geste bu salté la def te bool bool bool bool da nga ko xam ci liggéey man nag bool bool da nga ko ci liggéey mais ànd ñoo xam ne dañuy ruubee di sàcc loolu kenn xamee ko bool bool bëri naa ngi bay guy gi loolu amu fa bëri naa ngi bay juuf loolu amu fa xam nga te bool bool yàgg nañu bëri ak ñeneen yooyu mu musu fa am yaa ngi de mais boo àndee koo xam ne ko dafa mel ni bis bi moom da ko doole mm-hmm. ñëw di ma ruubee jëm surtout ñu jël sama téléphone téléphone bi du dara de mais samay contact laa soxla woo naa sama ménagère woo Fallou Ndiaye démb maa ngi woo président Bada jon ci guddi mais jotuma ko. ndax oo ma téléphone bu ma ko waat sama téléphone sœur laa ko doon wooyee. woo naa ko ba sonn jotuma ko dem si guddi. te tey dama demoon entraînement ñëw amaatuma numéro te numéro bi foofu laa ko foofu laa ko enregistré woon si téléphone boobu moo tax waatuma ko mais nag bu ko déggee ma kon ko moom mooy mu si njiiti la bokk Bada John mu wax ay xaleem ñu jox ma sama téléphone yaa may dégg te xam làmb ji arène nationale la ñoom bu bu ñoom bu nu fàtte loolu. non dina ñëw ànd ak dëgg la. ma ne la ki ko mën ak ki koy jéem du benn de. barki alxuraanu karim billaay wallaay démb ba tey ñu mooy woo sama téléphone jabar samay xarit ak samay ànd jàmm ñi nga xam ni mooy loolu. mais fi mu toll xam nga du sama diggante Mor Kankang du ci wax xam naa du ma ci wax su may wax damay damay wax si loo xam bis boo xam ne maanaam mu ngi si man tal naa ko déedéet man dégg man fi man fi nu toll nii xam lu may waaj pour dem def sama plainte ñu jox ma sama ñu jox ma sama sama téléphone. comme mbir mi yegg na la foofu. maanaam xam xama ndax lan day yomb day yomb man ma xam ki jël sama téléphone ki àndoon ak moom sol may mooy Sénégal bi dina génne sama sama maanaam sama téléphone te démb nit ñi nee nañu kooku noonu. am mm-hmm. ah, ñun ban demee policier jàpp nañ ko. jàpp dañ ko policier dañ ko jàpp kon maanaam xam nga ku tooñ ku tooñ wàllu doo doo maanaam doo gudd fan. yaa ngi dégg jël na sama téléphone te policier yi jàpp nañ ko waaw bu bu dee bu nag si def si jublu pour pour maanaam ruube ma jël sama téléphone pour ma wuti waat beneen yenn beneen numéro wala pour ma jëlaat sama perte samay contact nax na boppam. yaa may dégg sama téléphone daf ma ñor téléphone bi nag du dara mais samay contact moo ma ñor ma koy àdduna yëpp Alioune Seye Junior kenn kenn mësu ko dégg ci affaire yu ñàkk fayda waaw ku ku am fulla laa dégg nga ku ku xam sama bopp laa xam nga mais waram mun a ñëw estade démb def leen ma wax ñëw ba ma ñëwee toog naa fi mu war a toog woo naan ma wàcc naa ñi ma ruubee mu ànd ak lu ma centaine de personnes di ma ruubee di ma saaga. di ma saaga di ma wax wax yoo xam ni xam nga mooy loolu démb ñun bu leen toppoon bu leen toppoon affaire yi dina dina jéeg mais samay sama ñi ma àndaloon dama dem wax boo xoolee ci caméra bi soo xoolee ci kii yi da si écran yi da ngay gis may may leen di téye di wax ak ñoom ne booy bu leen bu leen yàq sama làmbate bu leen indi ay problème yoo xam ne ëllëg lu mu ñu sama kaw lay kopp ñoom xam ne ñëpp xam ne ni ñoom ñoo ñu tooñ di ñu fekk du ñu saaga kaale ñu dem kaale ñu dem yaa may dégg fu ñu taxaw ñu fekk ñu fa di ñu saaga di ñu ruubee ni koy boo ko bu jël alalam mais wax nag moo kankan moo mbër mbër moom gars yi duñ ko nawoon mhm. gars yi dañ la nawoon te nag luñ ci mën a wax mooy xale la dañ ko may chance déglu ma gars yi dañ la nawoon mënoon naa bëre ñeneen ñu dul yow. Mm. xam nga mais maanaam da ngay yaru xam xama sa entourage sa entourage ki soloon ma Sénégal bi xam nga ko bu baax a baax dégg naa mooy sa cumukaay moo sàcc sama téléphone. jëlu sama téléphone dafa sàcc sama téléphone te téléphone boobu noonu du dara mais samay contact moom moom ma ñor combat bi nag mënuguma ci wax dara te sama téléphone génnul téléphone bi nag maanaam su may wax téléphone sax. après nit ñi sax ñi nga xam ne samay samay samay samay nit doon di ma gis dama defe ni téléphone bi du dara mais samay contact moom ma ñor. sama li nekk si biir téléphone man loolu moom moom man moo ma ñor. nan ko génne si njëkk ak teraanga yaa ma dégg Bada Dione mu moo seen kilifa Bada Dione mooy yaa seen kilifa dama bëgg. sax xale yi ñu génne sama téléphone. bu fekkee ñoo ko jël moom. non non ñoom ñoo ñoom ñoo ko jël. ñoom ñoo ñoom ñoo ko jël ndax ñi ma àndaloon quatre personnes ñi ma àndaloon sax duñ ñoom ñoo doon sama kaw tonnerre rek daam seen ñu ngi taxaw fële ñoom ñooñu dem topp di ñu bëmax di ñu ruubee yére bi ma soloon da dañ ko xëpp di maanaam supporter sax garaawul ñoom ñu dem xëpp ay ndox ak di ma sànni ay ndox ay café garaawul mais ñoom ñi xam ñu ànd nag mbër mi lu ne démb démb maanaam lu ne dund naa ko foofu noonu mais nag garaawul làmb la mais sama téléphone nag moom bokk ci làmb sàcc sama téléphone bokk ci làmb yaa ma dégg di la moor nga wax say xarit ñu génn sama téléphone bugguma si jàmm bugguma si bugguma si ay bugguma si xool da da da nga jëm ci bés boo xam ne bugguma àgg yow si yoon. yaa may dégg bugguma àgg yen ci yoon ñu ne Aliou Cissé yoon nii naa nga man ku ma xam-xam ni man yéenuma kenn lu bon. yéenuma kenn lu bon képp ku ma yéen lu bon yàlla këpp sama kaw woon naa alxuraanu karim su ma leen yéenee safaan yàlla këpp sama kaw li ma la yéene kay mooy bëri yow daan la loolu rek laa mais ma la ay gàllankoor non non yéenewu ma la ko ndax rakk nga espoir nga làmb dala yaakaar. xam nga sama téléphone laa bëgg mu génn suma ma su ma paree nag fii. Hmm. dinaa dem dinaa dem si agence bi fii dem jëli sama piis ndax ay nit ñu ngi may woo xam na maanaam. duñ ma jot yaa may dégg mais sama téléphone nag génn man kenn du jël sama téléphone de man yemba laa dëkk te du ma ragal. arène nationale ngeen moo fi si la ñuy bëree si man maay recevoir na ngeen xam loolu yéen a ñu recevoir démb yéen man maa leen recevoir sur le le vingt quatre juillet. sama téléphone laa bëgg nag mu génn bëgguma bëgguma ay bëgguma xuloo jàmm rek laa bëgg sama téléphone nag génn maa ngi koy wax Bada John maa ngi ko wax sa ménager Sóoru yaa may dégg ki soloon maye Sénégal bi moo jël sama téléphone te ko taay di ko wax moo bi moo jël sama téléphone man nag loolu laa amoon lu may wax point combat moom mu ko wax xam nga munu guma ko wax ndax dama dama nekkagul sax ci ci combat nekkaguma sax ci. du non sama téléphone. moom moo ma gën a ñor que làmb ndax sama téléphone li ci nekk wër naa alxuraanu karim moo ma gën a làmb ndax samay samay dug samay document moo si nekk ak samay samay samay archive yoo xam ne xam nga mooy loolu xam nga te sama sama piis sama piis euh, sama piis sama orange money sama wave lépp mu ngi ci te boo demee jëli ko nag xam naa li ko sax sa compte dina la ko dello loolu moom loolu moom leer na ma mm-hmm. xam nga dem ba tey sama téléphone yoruma ay nit dama woo du du maanaam duñ ma jot xam nga xam nga kan moo lay soxla di di la woo samay samay contact yoo xam ne ay nit yoo xam ne nit yu am importance yi man su fa laa amate seen seen numéro maanaam pour yàqal ma pour yàqal ma xam nga loolu métti na métti na quoi métti na trop mais nag lépp maa ngi koy sant suñu borom di xaar tamit ñoom lan la leen wax seen seen njiit la leen wax su ma toogee deux jours trois jours tey la leen lundi suba la mardi dara génnul man nag li ma li ma yoon may dinaa ko def li ma may yoon may dinaa ko def tom kii soloon mooy Sénégal bi man kan xam ne ko bu baax a baax kii soloon mooy Sénégal bi xaw ko de mais yow xam nga ko den dem ci yoon te di nga ko indi. gis ngeen mbokk yi tey Alioune Seye Junior lañ seet woon parce que démb def signature wala boog face to face la cay xew na ci dégg ngeen ku nekk ni mu ko waxee bu fekkee nag moo kankan ka nga àndaloon moo jël téléphone bi wala boog gis na ki jël téléphone bi. nga loolu làmb ci làmb nag la bokk mais nga delloo ko téléphone am yeneen u fees dina am bu bés baa loo ko mën nga def ko ci moom boo ko mënee rey reyal waaw mais euh, kontaan nañ ci yow bu baax baax ndax gis nañ ni ngay doxalee làmb Alioune Seye tamit ku fair-play la parce que koo gis ñu ko waxee nii bu doon keneen la am na neneen nu muy waxee mais kontaan nañ ci moom bu baax a baax dina jox dig daje beneen yoon kontaan naa ci yow Alioune Seye merci beaucoup jaajëf